Euh, mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante ko lëre gi ku tegi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaat benn waxtu jot na ci Medina Cheikh Sandar bi sibile ci xibaar yi euh, dooree ko bés bu ñu jagleel àdduna wërngal këpp feebar ba tey jii la Sénégal nag ne ñu lu aju ci wàllu insuline bi lépp lu aju ci euh, subvention ba cay daal di nag def état bu Sénégal dina ko daal di nag jël dooree ko nag atum 2021 directrice bu santé moo ko daal di xamle dinañ ko teewlu ci ndorteelu xibaar yi fexe nag ba rëq-rëq yi am ak ñàkk yemale yi fii ci mim réew ñu daal di koy nag joyanti e, ñiy feebar daanaka lu jege million at bu jot dinañ ko daal di def si seen nag pàcc ak seen i e, dund ba tax waa Assad mbir moomu ñu daal di koy dabaatal e, njiit la dinañ ko daal di nag teewlu Baye Umar Gueye mooy doon suñu ganu xibaar yi dinañu daal di nag desandi ba tey ak mbir moome wàllu jabet bi ca Kaolack lañu fa daal di nag nemmeeku mooy ab unité traitement bañ leen daal sampal ca hôpital ba tax na euh, ba yëf mu ngi daal di nag wàññiku du coono yi ñu cay daal di nag dund euh, xibaaru bitim réew nag dinañu dem ak président bu transition réew Mali ndaw mi fas yéene amal ab ne mekku ñaari fan fii ci mim réew ci boobu jamono euh, néew ki nga xam ne nag moo fa nekkoon président bu Mali di Amadou Toumani Touré yegsi na ca aéroport ba ngir ñu daal di waajal nag jébal ko boromam sport wàllu tàggat yaram kon Dakar war a nekk capitale toll ci si juróom-ñaar fukk ci ay uh, combattant yu jaay bàyyeekoo fukk ak juróom benn réew ñu war rek jongante nag ci uh, tur ci uh, judo boobule ci weekend bi ci samedi bi tey ji doore ko nag ak ëllëg ci stade wala stade Marius Ndiaye lañ koy daal di nag amale buñ ca noppalee revue de presse bi nañ ko ca daal di nag toftal ànd ceeg Adja Habsa Iliman Wane waa de jaajëfal ko moo fare ci sottandiku kaay bi faram-fàcce Guinness gis lay doon Euh, ci kàddu gi mbokk yi ñu daal di dooree nag xibaar yi ak lu aju ci bésug tey euh, fukk ak ñeent ci weeru octobre bés novembre bés bi ñu jagleel nag wàllu nag jabet tem ba ñu jël ko mooy personnel infirmier bi ak jabet boobe euh, nañu koy daal di nag taxawoo ñu gis ne nag jabet googu li koy daal di faral di indi mooy wàllu nag hyperglycémie clinique bi nga xam ne nag dañ koy fas faral di nemmeeku nag ci nit ki fii ci Sénégal ci téeméer yi ñu daal di nag jël. ñetti ak genn wàll yi daanaka amee nañu euh, feebar boobu la mandarga feebar le ba tax nag ñoo bëgg lépp lu aju ci euh, daal di koy nag def dépistage bu teel bi teel koo xam bu ko defee euh, gàttandu ko loraange yi ñu wàññi ko ñu daal di koy nag def nañ ci daal di jukki ak ci xibaar yi ñu desandi ci ak journée mondiale googu ñu daal di jagleel wàllu diabète 2021 moom subvention bi état bi dina door di ko daal di defal boppam insuline bi nga xam ne sax dañ koy daal di nag def. jëmmal ci wàllu euh, bindukaay boo xam ne nit ki fu muy dem dina ko mën rek yóbbaale docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye jàpp ne nag euh, dige boobu bàyyeekoo na ci ministère bi ñu dénk wàllu santé ñu déglu ko ak Sosette Kali. xeex bi tey ministre de la santé mu ngi ci ak service am yëpp bu ma nee service am gis nga thème bi tey dañ ne infirmier yi ak infirmier tey nan lañu nekkee di toppatoo ñi nga xam ne ñoo am feebar bu métti bi nga xam ne mooy ne jabet feebar bu la parce que boo ko amee xëy na sa xel du dal toujours yaa ngi xalaat ay complications bi nga xamante ne moom la ñu gën a tiit mooy bi nga xamante ne dañuy dagg cër yi nga xam ne maam yàlla mooy la ko may donc da ngay am benn problème psychologique. mais wéetuñu si ndaxte xam nga Sénégal ay at a ngi nii Sénégal jël na fële teg insuline animal am li ñuy wax insuline humaine mais 2021 incha allah su ko euh, yàlla nangoo euh, son excellence le président de la république dafa yokk benn euh, subvention am li nga xam ne mooy analogue de l'insuline nga xam ne day mel ni ay bic xam nga yooyu day tax nit ki di mën a dem fi mu war a dem yëpp parce que feebar am na mais feebar dina gën a métti bu fekkee ne faj bi daf lay teg benn place mais bu fekkee ci la ñuy daal di nag desandi wàllu nag euh, diabète bi bés bi ñu ko daal di jagleel ca Kaolack gis nañ ne prise en charge bi ñi amee feebar bi mu ngay daal di nag am ak tan ndax unité traitement ba ñu daal di nag ubbi ca hôpital bu Kaolack euh, ki nga xam ne sax mooy jafe-jafe bu mag bi nga xam ne diabète yi kii am nañ ko mooy njëkk li gis nañ ne daal dafa daal di cher lool Kaolack Adja Awa Thiaw unité de diabète bi nga xamee ne si ubbi nañ ko ci centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass Dey nekk waaye itam yombal na bu baax a baax li nga xam ne sii moo nekk pajtalum ñi nga xam ne sii dañoo yore jàngoro jàngoroy suukar ñu naan ko jabet ci diwaan bu Kaolack loolu de gën naa yombal bu baax a baax seen pajtal te malaat yi dootuñu dem ci yeneen diwaan yi ngir ñu leen di xoolal seen wérgu yaram centre bi nag daan na dalal daanaka bis bu nekk lu mu néew néew lu mat juróom fukki patient yoo xamee ni si danañ fa teew waaye nag bi ñu duggee ci mbas mi nga nga xam ne moo nekk service crise maladie interne yooyu kàddu ñu ngi ko nungoo ci président Assad di Ibrahima Ba boobu ba léegi nag mën nañ ni taux de fréquentation bi nekk na loo xamee ne si lu wàññeeku la ndaxte malade yu bare dañ doon ragal ñëw ci l'hôpital bi jële fa yeneen jàngoro waaye nag personnel bi moom ñi ngi doon wéy ba tey di leen topp jaarale ko nag ci téléphone ngir daal di mën a fagaru bépp complication te loolu nag nekkoon na daanaka tawféex ci malade yu bare yi nga xamee nee na léegi day benn jafe-jafe daanaka moom la ñi nga xamee ne si ñoom ñoo nekk diabétique yi am moo di cher goo xame ne si kat garab yi cher nañ ko ndaxte garab yooyu kenn du leen ko jox ci fi nga xam ne sii moom moo nekk mutuelle de santé yi te loolu nag day tax itam ñi seen loxo jotul seen gannaaw mu metti ci ñoom yokk ci ni ñi nga xamee ne si dañoo yore feebaru jabet li ci ëpp am na yeneen jàngoro yoo xamee ne si ñi ngi koy wéyaale lu mel ni hypertension artérielle wala boog feebaru roño insuffisance rénale wala ba tey jàngoro yi nga xamee ne si dafay laal xol bi loolu nag mooy gën a jafeel li nga xam ne moom moo nekk pajtal mi ndaxte ñi nga xamee ne si dañoo am jabet li ci ëpp day dañoo bokk ci njaboot yoo xamee ni sii yu néew doole lañ Awa caw doon jokkoog yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Euh, ñu daal di dem ndar foofu itam feebaru jabet gi seeti kii di nag euh, Doudou Diop mu nekk ab euh, per de famille buy dund ak doomu jangaro gi atum 1997 ba léegi moom moo nekk président antenne bu Saint-Louis association euh, sénégalaise yi nga xam ne ñooy taxawaalu nag diabétique yi moom nag nee ñu seen i mbëbët daal benn la mooy ñu daal di am unité goo xam ne mooy taxawu diabétique yi ca diwaanu Ndar Yves Tendeng kii di Doudou Diop toll ci lu ëpp juróom fukki at daanaka moom jabetik la te muy xam ne ne nangu na ko. waaw man maa ngi am sama diabète 97 wax dëgg li ma suturaal sant yàlla la ak dama ko teel a nangu. maa ngi sant yàlla dama naan diabète daanaka day maye wér. waaye nag dafa am njëg. bu la jabet dalee. nga nangu ko. nga dénk sa bopp médecin bu fa médecin nga dem ci infirmier ba la ñu lay digal nga koy def la lay tere nga koy bàyyi. waa ji daanaka moo jiite fii ci ndar kuréel bi ëmb mboolem ñi amee feebaru diabète. kuréel bi biñ koy sas en 2005 laa nekk ci bopp bi. boobu ba léegi yàgg na parce que def na fukki at ak juróom. waaye nag ñett yoon def nañ fi assemblée général pour que ma bàyyeeg njiit li keneen. mais ñi ñi ko bokkal ñëpp dañu ni jëluñ te mais ren gis naa ñi ko téye mën nañ ko téye moo tax maa ngi dem wuy ji Baye Umar Dakar. Dakar uma na duma ko tudd te wax dëgg duma ko gërëm sama tur ak turu diabétique yi kooku diabétique dañ ko war a xam nit la koo xamante ni nelawul guddi noppalu bëccëg pour diabétique yi kooku mën naa ko seede ci bisu tey jilee ñuy màggal bis bi ñu jagleel diabétique yi moom mi lee di Doudou Diop daal di ci sukkandiku ngir fësal seen i doléance ñun bi ñu toogee suñu biir xayma dañu ni bi ñu xoolee sunu maladie mooy u Saint-Louis am benn unité de diabétam c'est-à-dire structure boo xamante ni lépp lu diabétique di def daf ko fay fekk du fi jar mu dem Louga wala mu dem Thiès wala feneen béréb yooyu am nañu ay béréb yu baax tey kooku yombul ñëpp te kooku man personnellement Mansour Faye laa ci tàllal loxo parce que yi muy def bëri na ci dëkk bi bu ko neexoon ndar am unité de diabète ci noonee itam mu daal di dellu si ci thème bi nga xam ne ni tànn nañ ko reen jilee te muy xamle ne am na solo lool OMS tànn thème bi di personnel infirmier ay diabète pour yokkaat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 Sud FM. yéen bu ñu ca noppee dem euh, Ziguinchor foofu itam wàllu coronavirus bi moo tax activité association bi yëngu ci wàllu jabet euh, daal di nag suulu waaye feebar ba mu ngay law ci barab euh, boobule prise en charge bi itam ba tey nekk jafe-jafe ca barab yooyu lee rawatina ñàkkum personnel ba ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy rek toppatoo ñu amee feebar bi tax nag ña dëkkee barab boobule di sàkku jàppale bàyyi ko nag ci nguur gi bi Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. atum benn manifestation ngir màggal bés boobi bi ñoo ko jël buñ sukkandikoo ci Babacar Wade ne mu ngi dellu si ci waral mbir mi ni mel la ren nag dañu dul def dara lu tax loolu covid bu nekk si réew mi depuis 2019 ñu ñaan ñu ñun ñëpp ku si nekk toog këram surtout que nit ñoo xam ne ki ñoom la ñuy oo ay mag lañu ñu ngi feebar covid bi yooyu nit la jënaaya ci atum 2019 diwaan bi mu nga amoon lu ëpp juróomi junni malade waaye nag fu mu nekk nii limbo boobu weesu nañ ko bu baax a baax buñ sukkandikoo ci njiitu ñi nga xamante ni ñoo yore jabet bi fii ci diwaan bi. jabet yi ëpp nañu peut-être ñaar yoon ci loolu parce que jamono gi foo tëgg jàmba tension la ak jabet feebar bi mu ngi jën law si suñu dëkk bi. prise en charge ñi nga xam ni ñoo yore jàngoro jooju nag dafa nekk lu jafe lool fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax ñoom ñooñu dañuy amee problème yu bëri ngir mën a faju ji bu ñu sukkandikoo ci Babacar Wade. garab yi dafa cher cher koo xam ni ki nit ñi mën si jot. ci wàllu personnel bi euh, fii région bi benn docteur lañu amoon boo xam ne kii amoon na formation bu bu dëgër si wàllu prise en charge du diabète docteur Diassé kooku sa dem na retraite matériel bi dara neew fa matériel bu si Jonathan xanaa si hôpital régional ak hôpital euh, de la paix te loolu tamit même docteurs yi ñu ngi koy jooytu di koy jàmbat kii di def ay kilomètres kilomètres di xëy 6 heures du matin di dem toog ñu ñëw dajale ay 100 200 personnes ngay toog ba 3 heures 4 heures balaa ngay faju c'est pas normal Bignona da ngay gis ñuy jógee ba Jullu Kafountine Thionck pour di ñëw di def ay traitement diabétique fii nga xoolal loolu lu mu métti. ngir nag seen tolof tolof yooyu wàññeeku ñi nga xamante ni ñoo amee diabète fii ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi woo nguur gi mu dugal si loxoom ki doon jokkoo ak fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. benn Michel Kanfoudi daal di koy jëkk jaajëfal ñu daal di desandi situation coronavirus bi ci Sénégal euh, ci ñaar diggante démb ak tey kon 24 heures yi ñu daal di nag génn wàññi nañu ñaar fukk ak ñeent ci ay cas yu daal di wàllante feebar bi euh, am itam fukk ak ñeent yoo xam ne wàllu transmission communataire la bañ ko séddalee Ndakaaru Thiès Daara mbuur ak Tivaouane am nañ ca am benn patient boo xam ne nag ñàkk na bakkanam ci feebaru mbas mi diggante démb ak tey euh, point du jour bi nag docteur El Hadji Mamadou Ndiaye di ci dellu siwaat mooy directeur bu prévention ca ministère santé ñu déglu ko ci micro Sud FM ci junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent test yu ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé mooy ki jóge biti bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu jaas am nañ fukk ak ñeent ñu tuddee ka communautaire mooy ñu jot ci mbas mi waaye xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Liberté 5 moo ci am ñaar Thiès am ci ñaar Almadi am ci benn Daara benn Dakar Plateau benn Fann Résidence benn HLM Grand Médine benn mbuur benn Wokam benn Sicap Baobab benn Tivaouane benn ak Yoff benn juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés niki ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñeent malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb ajjuma fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar nañ si ñett téeméer ak ñaar ak juróom ñàkk seen bakkan mu des ñeent fukk ak ñeent si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñu des ci lal hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. wàllu mbëkk mi tukki dem bitim réew jàll ko nag ci gaal yi association Africa Feliz bu Sénégal moom nag ci tàggat ndaw ñi la bëgg nag jaaree fexe ñu daal di nag des ci yenn ci ay xeetu métier doxalin boobu nag euh, kuréel googu di Joses bu Thiès euh, ñoom rafetlu nañ ko ba dalal nañ sax formation boobu lu war a toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay ndaw stagiaires yi nga xam ne nee na noppi nañu ngir wàllu ñaax gi di sensibilisation ndaw yi ñu daal di koy amal fexe ba ñu xam ne daal. mën nañu des ci seen réew waaye itam mën ci réussir Thiès Babacar Ndaw ak ah, kuréel gii di Africa Félix Sénégal ah, xëyub ndaw yi lu ko soxal na ñoom jàpp nañ ne toog fii ci Sénégal tekk fii lu mën a nekk la madame Mariama Badji njiitalu Africa Félix Sénégal war nañu gëm suñu bopp war nañu am foi ak espoir loolu mooy tax ñu ñu toog ñu xam ne fii ku fi góorgóorlu rek daa nga am dara Africa Feliz Sénégal nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo ñu ngi tàllal jeunes yëpp ak famille loxo nañu liggéey waaye day fekk ñu bëgg ka ñu gëm ka ci bésub tey lu ëpp juróomi téeméer ndaw tàggat nañ leen si métier yu bare ci solaire renforcement de capacité gis nañ ci ne jeunes yu bëri ñu nañ leen te macha allah ñu ngi liggéey soudage nanka-nanka am na juróom-ñaar yu ñu insérer waaye am nañu yaakaar ne ñeneen ñi soobee yàlla nañ leen insérer parce que mën nañu seen liggéey gis nañ ko jigéen yu bëri léegi ñooy dem cotiser seen bopp avec laajatuñu seen jëkkër lu ñu cotiser avec donc sant yàlla bu baax la am na ñu métier gis nañ ci seen bopp et puis mentalement ça a changé sérigraphie am na ci ñoo xamante ne bi nañu seen i atelier ba jël seen i ñuy liggéey ak ñoom donc loolu avancement la mu ay xale yoo xamante ne tey jii seen yaakaar judduwaat na ginnaaw bi ñu bokkee ci formation bi naam taxu ko guddi ñaari ayu bés waaye lañ ci doon séntu gis nañ ko Émile Sène yor seen kaddu. nit ñi dem ci géej gi Barça Barça et cetera je que ñoom dégg nañ Africa Félix seconde dégg nañ Africa Félix du ñu xalaat dugg ci géej gi important la Africa Félix vraiment ñu ngi leen di gërëm di gërëm madame Barchi ak équipe am di gërëm également waa direction des œuvres bu Thiès jeunes yi dem ci géej gi ñu xam lu xam ne Sénégal fii dinañ fi am dara nga am métier nga ñàkk nga am liggéey ne nga ñàkk ko am mais au moins di nga am formation boo xam ne di la mën a tax nga def yow loo xam ne yaa ko moomal sa bopp du soxla nga koy wuti feneen. formation boo xam ne Africa Feliz lépp mu jël ko en charge bi yoon mu gën ko yaatal lëkkaloo si ak centre des œuvres diocésaines bu Thiès ba tax na sax kilifa l'église yu Thiès yi bi ñuy joxee raaya yi rafetlu nañ ko tey jii ñaan nag ne képp ko nga xamante ne am ngay xalaat wala ay initiative yoo xam ne day tàggat ndaw yi leen jàppale Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar fexe ba daal di nag jegeel administration bi ak ñi nga xam ne ñoo ko daal di nag yitteewu foofu ca Louga ah, samp nañ fa ab bureau relais boo xam ne nag ci PAMA la jaare mooy programme bi taxaw wàll yeesal administration bi muy fonctionnaire yi muy ñuy sàkku ngir am liggéey eh, ci fonction publique dootul jar ñuy dem ba Ndakaaru daal di nag du déposer seen i eh, këyit Lamine Gueye Samane daal di topp nag ab caravane service public di ñaari fan eh, def ca capital bu Njàmbur foofee ngir daal di ci nag euh, ñax askan wa Louga Lamine Gueye Samba. ñaareelu sumb caravane bi ñuy wooye service public mi ngi tàmbalee Louga liñ si jublu mooy fexe bépp fonctionnaire gën a jóge service yi nga xam ñoom ñooy saytu lépp lu jëm sa wàllu liggéey gouvernance bu Louga nag fa la ñu samp benn bureau relais bi nga xam ne dina tax nan bépp fonctionnaire dootul jógeti si goxam di dem ba fi nga xam ni moom mooy Ndakaaru ngir saytu ay mbiram Amadou Kane mooy coordonnateur programme PAMA déplacé avec toute l'équipe du ministère pour aider les fonctionnaires toog fii xam seen situation d'avancement dossier loolu nag bu amee dañ koy gërëmee le président de la République Macky Sall moom moo lancé woon le PAMA jox ñu aussi comme feuille de route ñu gën a rapproche administration bi des administrés c'est-à-dire que aujourd'hui nañ ko gën a ci suuf nit ñi gën am accès ci administration bi bañ di dem ba Dakar ngir rek benn dossier pilor man déposé naa kayit mais bu nekkee day léegi wut léegi liggéey ci fonction publique euh, boo xam ne si ngay bindu nga am numéro fa la ñuy pour mën a recruter tey ñu toog fii ci Louga expliqué nit ñi ne léegi nii la mbir mi doxee au niveau bureau la pour dimbale xale yooyu ñu mën a bindu sur la plateforme ba am seen numéro comme niñ ko demandé au niveau de la fonction ak Kaffrine Louga mooy ñeenteelu diwaan bi nga xam ne dalal na bureau bu ni mel ci Saman Sud FM. Lamine Gueye ñu dikk ci xew-xew teg euh, xeer gu jëkk école application euh, transmission ba ca yëmbal ca camp colonel euh, Mamadou Dieng diirub juróom-ñetti weer lay daal di nag am école boobu dina mën dugal loxoom ci defi wàllu kaaraange ci banlieue bi dina tax itam armée bi daal di am ay nit ñu xereñ yi nga xam ne ci wàllu woy xarale yi dañ leen fay rek tàggat dañuy dem ba yëmbal fekki suñu naataango El Hadj Moussa Thiam école d'application des transmissions danañ ko amal ci camp colonel Mamadou Dieng bu nekk ci yëmbal école boobee nag dina tàggat ay soldats jëm rek ci xarala yu bees yi loolee rek jëm ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu li ñuy wax guerre électronique ak li jëm ci wàllu cyberdéfense loolee ki ko biral di ministre des forces armées bi di Sidiki Kaba. ci guerre moderne bi ñu nekk nii actuellement dafa am li nga xam ne ñu ne cybercriminalité ak cyberdéfense loolu yëpp da nga war a préparer sa ndax formation de am solo importance euh, président de la République Macky Sall waxoon na ko ci formation ci plan vingt vingt cinq formation équipement infrastructure condition nekkin soldat loolu yëpp ñeent poñ la bi nga xam ne loolu mooy téye plan bi. école boobee nag bokk ci ci norme yu mucc ayib bi nag. dana jox l'armée bi ay ñoo xam ni seen xel màcc jëm ci wàllu li nga xam ni moo di xarala yu bees yi. transmission dafa am solo ci armée arme bi nga xam ne loolu moo tax ñu nekk ci temps de paix ou temps de crise mën nañu transmettre information yi nga xam ne commandement soxla na ko. te le général Birame Diop maa ngi koy félicité ndax initiative bi nga xam ne dafa réglé li nga xam ne manqué na woon ci suñu environnement formation officier yi. ak gendarmerie yi. école boobee nag fas yéene ne jàppale tamit suñ dëkkandoo yi nga xam ne nag ñoo ngi ci sous région bi loolee nag ci benn partenariat. loolu day gën a tax suñu armée yi ñu gën a intégré intégration bi nga xam ne dina gën a aidé su dee crise am na. pour ñu mën a liggéey. liggéey école boobee nag dana am si juróom-ñetti weer école boobee nag dana tax daal moo di larme bi taxaw tembe rek si lu jëm ci wàllu jokkale ay renseignement ak jëm tamit si ay compte rendu te na mu gën a gaawee loolee nag ngir gën a xeex rek li jëm ci wàllu kaaraange gi. le défi c'est le défi de la sécurité. xam ngeen ne environnement bi environnement bu incertain la. ci jamono yi ci état yi nga xam ne ñoo wër Sénégal. gis ngeen ne am na foofu ay dafa bokk ci xeex bi nga xam ne war nañ ko def ci terrorisme grand banditisme ak yeneen criminalité ministre des forces armées ba muy dem nag bàkk nañ ko ni ki mel la amal ca ndorteel ba muy ñëw El Hadj Moussa Thiam jot ci xibaar yi fi ci camp colonel Mamadou Dieng ci yëmbal pour rajo Sud FM xibaaru bitim réew euh, Mali la ñu jëm foofu vice président ba euh, di colonel Assimi Goïta moom mi daal di nag dalal euh, néew ko général Amadou Toumani Touré moom mi fa nekkoon président de la république foofa ci Mali ci samedi tey jii la loolee di nag néew gi daal di nag yegg ci aéroport international bu président Modibo. keta euh, Keita ab %e askan wu bari nag ak i am di jàmb ay wayjur yi daal di dem ci foofe euh, wala parents yi ngir rek daal di koy rek %e teertu [r] ñu ci bëri nag seen xool daal di ciy nag fees rawatina vice :fra président :fra ba mi nga xam ne daal dinay sax incliné :fra wu ci %e lii di %e néewam %e colonel :fra Assimi moom amoon na nag ci wetam ki nga xam ne nag mooy %e premier ministre :fra ba fa nekk jamono jii di Mokhtar %e Wane rap ñu fa daal di nag fàttali na nag lii di eh, obsèques yi di dëj bi nañ ko daldi nag def ca eh, diwaanu Mali yëpp ñu ngi koy xaarandi nag ak ab prise d'arme eh, ca génie militaire bu ca place d'arme bu génie militaire ba mardi kon ña talaata fukki fan ak juróom-ñaar lay doon ci weeru novembre 2020 bi bu 10 heures jotee ci teewaayu Bandaw di président transition ba Bandaw boobu ñu daal nag fàttali ne sax. ndax diirub ñaari fan dina amal ab nemmeeku fii ci euh, Sénégal daal di gane si njiitu réew mi euh, Macky Sall fii la ñuy mag yéen ci xibaaru tàggat yaram beneen xët bi wàll ci xibaaru bitim réew beneen xët bi tàggat yaram. tàggat yaram ñu dalal ci Odile Minkilaan Odile ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñoo ngi lay fay Adama ma may nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu rajo bi jamono ji xabaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllum football ak lu jëm ci euh, segg gi ñu segg équipe yi euh, jëm ci CAN bu ñuy amal atum 2022 waaye nee nañu nañu bàyyi ni ñu koy woowee di CAN 2021 euh, ba tey kon noonu lañ koy fas yéenee di woowee kon ñetteelu bëccëg bi ni ki suba Sénégal dina laaleek Guinée Bissau Sénégal nag jàppale ni fu mu ne nii am ñetti eh, poñ kon eh, gaynde yi ñoom eh, benn jongante buñ jongante bi buñ ci amee ndam wala ñu am ci sax ab nul ñoom dañuy daal di qualifié ci li nga xamante ne moom mooy CAN 2021 boobee kon naka la ñu war a jongante suba ci diggante diggante gaynde yi ak ñii di waa Jurtus yu Guinée Bissau kii di coach Badara Sarr mu ngi ci indi ay tontu. match la boo xamante ni il faut que déjà Sénégal ñu jël ko très au gis nañu match aller bi peut ñoom. dañu joué woon pour gérer surtout match bi bëgg ñoon a euh, joué seen carte yëpp parce que suñu amoon match niil peut-être ba léegi seen chance day resté mais fi mu nekk nii xam nañ ni que li ñuy wax naan presque béy woy na mbuus donc tey li ñu am rek ñoom mooy que su match bi su ñëwee ñu ñu attaquer à outrance pour essayer dugal ay buts lu mu gën a gaawee donc tey mun nañu xaar match boo xamante ni Bissau Guinée duñu jouer bloc bas mais dañu nar a attaqué jeu direct sax peut-être dina fa bëri trop parce que temps bi aussi comme ni match aller bi meloon rek la dina tàng foofu donc ñu xam ni ñoom euh, à domicile la peut amul public mais quand même dinañ xam ni dafa tàng seen terrain la aussi dañuy bëgg vraiment wane wane seen seen doole foofu jéem a léegi nag ñun au niveau du Sénégal déjà il faut que ñu gérer loolu surtout balle en profondeur yi suñu ginnaaw ak balle arrêtée yi que vraiment balle aussi yaay nañu si trop trop gis nañ ko bal en profondeur yi il faut que ñu ñu bàyyi si xel défense bi ensuite vraiment ñoom comme dañu nar a attaquer c'est sûr que génn donc suñu génnee nag ñun aussi war nañ si mun a profiter parce que am nañ ay euh, jours yu gaaw si kanam yoo xamante ni wa espace yooyu waa Guinée Bissau di bàyyi war nañ si mun a jaar mais nag aussi il faut que ñun ñu soigner ñu defaraat suñu suñu jeu de transition bi c'est-à-dire euh, su gars yi attaqué ba perte bal bi rek Guinée Bissau Guinée ñun suñ ko jotee jeu de transition boobu balaa ñu defarwaat ñu gaaw ñun pour def ay attaque yu rapide mais ba pare am précision parce que gis nañ ko keroog euh, xaw nañu perte ay passes yu bëri ay yu mujj yi ñooy euh, avant dernière passe bi keroog perte nañ si lu bëri parce que des fois dañ doon def bëgg a def jeu long même après suñ doon def euh, jeu court aussi si dernière passe yi aussi doon na problème je pense que loolu war nañ ko mën a améliorer bal arrêté yi aussi war nañ ko mën a améliorer parce que keroog am nañu ay corner yu bëri peut-être léegi am na précision si corner yi mais léegi problème bi mooy nag euh, ñu am adresse pour pour mun a dugal donc match bi daal du niroog match bi ñu joué kaddu yi Badara Sarr kon jàppale ni Guinée Bissau ak Sénégal suba la ñuy jongante bu 16h euh, jotee ca stade du 28 euh, du 24 septembre ca Bissau euh, ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy gaynde yi ni ki tey jii nag ci suba si la ñu bawoo fii Sénégal wutal ji foofee nga xamante ne moom mooy ca Bissau ba tey ci wàllum football ak lu jëm ci lii di juróomeelu bëccëg Ligue de Nations tey nag am na ay jongante yu am solo bokk na ci Portugal mi laaleeg France Suisse di Euh, kii ki nga xamante ne moom mooy Suède ak Croatie la kon Suisse moom Espagne lay laale kon ñu ne yooyu la jongante bu 19h45 jotee euh, ci nag lañ koy amal ñu wax nag ci wàllum judo ak li nga xamante ne moo jëm ci ñeenteelu édition Open africain bu Dakar kon ni ki tey jii nag lay door foofee ca stade Marius Ndiaye dinañ nag juróom-ñaar fukki combattant yu jógee ci fukk ak juróom-benni euh, pays dëkk ñoom ñoo nekk fii jamono ji ci Sénégal di wër nag ay poñ yi nga xamante tax ñu daal di qualifié ci Jeux olympiques Tokyo atum 2021 bi ñu mal Sénégal nag euh, moom mu ngi ci euh, xeex bi ak euh, ñaar fukk ak juróom-ñeenti combattant ci dëkk yi nga xamante ni nag ñoom ñoo bokk ci bile compétition jàppale nag Sénégal moo ci ëppale ay judoka yi nga xamante ne ñoom la daal di wone ñoom la daal di présenté ci bile compétition kon jàppale ni ñeenteelu édition Open africain bu Dakar nag dina jeex nit ki suba ci dimanche bi aadama jaajëfal ko Odile Minki Laan Alassane ñu daal di nag dikk ci ganu xibaar yi eh, ba tey ci bés bi ñu jagleel wàllu nag diabète eh, fexe nag eh, ba ñàkk yemale ki rëq-rëq yi ñu daal di koy nag saafara ndax gis nañ ne fajum jabet dafa daal di cher lool ci Sénégal malaat yi daanaka lu jege million at bu jot dinañ ko génnee ngir seen pàcc ak la ñuy daal di nag dundee association bi nga xam ne nag mooy bu Sénégal wi taxaw way jabet yi di ci interpeller nag autorité yi bàyyi Omar Gueye jiite kuréel gi di ASAD ñu déglu ko ak Josette Kali Sud ganu bés bi léegi benn constat la ñuy njëkk def mooy ne jabet réalité la dina metti lool nga gis nit koo xamante ne dafa jànkoonteex jàngoro ji te amul lu mu ko fajee te loolu bari na fi léegi ñaaxeel bi mooy c'est nga dugg ci kër te gisoo diabétique donc réalité la maanaam feebar boo xamante ne mi ngi law te feebar bi bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor alors leneen li mooy jafe-jafe bi ci mbirum koom-koom doon na feebar boo xamante ne njëg bi dafa cher li ko tere mu mët million si weer bëriwul donc loolu si dëkk boo xamante ne dafa néew doole te boo xoolee exemple yi suñu association yi ñi si bëri bokk si dañu néew doole ñooñu naka lañu mën a def pour mën leen dimbali pour que jàngoro ji man leen indil ay jafe-jafe je pense que loolu mooy ñett yi bu njëkk bi moom mooy jabet réalité la bari na fi ñaareel bi moom mooy ne contexte Covid 19 ak économie bi nu mu demee koom-koom bi metti na lool ñetteel bi tamit te loolu tamit lu am solo la mooy xeex ignorance mooy permettre ñu def prévention de telle sorte que ñi amul ñu bañ ko am di dépister wu di xool seen yaram fe ñi ko am naka lañ leen di permettre ñu éviter complications yi ñi ko am am complications yi naka la ñu lu le maximum possible seen pronostic fiscal maanaam seen dundin ñu mën ko maanaam aar ba. muy bañ leen indil musiba. waa appel bi mooy ñi nga euh, xam nga tamit diabète euh, dafa doon feebar boo xam ne sa njiiru dund la. nit ki nag bu nekkee ne dafa am jàngoro joo xamante ne pour njiiru dundam la maanaam ay mënam néew laaj na ñu dimbali ko dimbali bi du sax ay joxe xaalis mais garab ki nga xamante ne moom lay jël war nañ ko wàññi wàññi boo xamante ne dina si mën a jot ñi nga xamante ne dañuy faju muy accessibilité au traitement mooy ne ñuy faju ñu def ay bërëb yoo xamante ne ñu bëggee faju ñu mën a faju te du ñu am ay jafe-jafe loolu dafa laaj formation personnelle xarañ ba nga xamante ne feebar bi lu mu mën a metti metti dina am ay nit yoo xamante ne dinañ ko mën faj te loolu am na Sénégal li des mooy ñu décentraliser ko le maximum possible pour ñu nit ñi mën a faju mën a egg si fi ñuy fajoo si ay anam yoo xamante ne lu néew la du seer moom mooy médicaments yi ñu wàññi ba mu yomb corona bi keñ am na jafe-jafe ndax dañuy wax ne dafa yeb jabet wante gis nañ ne liggéey nañ si liggéey boo xamante ne euh, panique panique bii yoo xamante ne mënoon na ko jur yàlla dimbal ne juru ko même bu nekkee ne lor am na si euh, mettit am na si wante liñ naan tirer les enseignements pour que lu nu mel ñu mën ko invité beneen yoon ñaanuñu yàlla mu amee bu amee naka la ñuy koy mën a prévenir ba du indi ay jafe-jafe revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence.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 dara gën neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen may li ci yéenekaay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 Kourumba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements mbay et frères. seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak. SPEM Sénégal premier équipement et machine. ñoo leen di may seen revue de presse. Habsa Elimane Wane asalaamaaleykum daleen nag jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee li leen gën a soxal nag mooy déggoo bi am ci wàllu napp bi ci diggante sunu réew ak union européenne waxtaane nañu it wàllu mbëkk mi ak wàllu politique dañu koy door ak Sud Quotidien bi bind ci xëtam mu njëkk ni ci diggante Sénégal ak union européenne daal déggoo bi nga xam ne moom lañ am ci wàllu napp fi mu toll ni daal leerul ci bopp yi ndax lëndam na lool bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication mi ngi xamal ne parlement européen saytu na bu baax a baax déggoo boobule li nga xam ne moom lañ tënk ci boobu la déggoo sax nag moo tax coow li ni kur ci suñu réew suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba di ñu xamal ne li ko waral nag mooy ton yi nga xam ne moom la ñu jagleel ñeent fukk ak juróomi bateau yi nga xam ne Europe lay bawoo ak it koppar bi nga xam ne moom la ñu war a joxe mu toll ci junni milliards bu toftalu téeméer ak fukk ak ñett ci kopparu CFA moo tax it ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp bi seeni laaj du jeex kawopa wàllu napp gi nee na ñoom daal lenn rek a leen soxol na mbir yi tegu ci yoon ci jamono jooju nag délégation union européenne moom di xam le ne bile déggoo daal amul lenn lu ci ñuul wala lu ci lëndam ministre biñ dénk wàllu napp bi di Aliou Ndoye nag moom xam le ne na déggoo bu yees amul suñu digg ak union européenne mi ngi xamle ne yile déggoo ci atum 2019 la ñu ko siife woon nekkaguloon ci bopp ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu napp bi déggoo gu yees googu soxal lool les échos di xam le ne daal kàddu yi nga xam ne moom la ci union européenne yëkkati daal doyu leen benn yoon kawopa di benn ci kuréel yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp bi ci suñu réew xam le ci biir 24 heures ne ton yooyu ñuy ruumandaat sax nag Sénégal dakaa moomul ab quota la bépp réew boo xam ne may nañ la si dogal yaa koy moom ñu wax ba tey ci wàllu koom ak waa Vox Populi ci diggante ñiy yëngu ci wàllu poor bi nag sa diggante rataxul commerçant yi transitaires yeeg transporteur yi sax dañoo fas yéene lu ko dalee altine banque seen loxo ndax nee nañ li xew ci pooru Ndakaaru doy na waa ñu jàll ci langue politique bi ak l'observateur di ñu xamal ne ginnaaw li ñu nekk ci nguur gi fexe daal ba gën a dëgëral jëmale seen wàll Wade Sonko ak xalifa li leen war fi mu toll nii daal mooy jàkkaarloog ñoom te ngir loolu mën a am nag te ñu bañ a fay ci wàllu politique faaw ñu dankaloo nekk benn bu ñu sukkandikoo ki suñu naataango yi faree ci immeuble Elimane Ndour professeur jàll Diop di delloo si xel yi ne ku jege ci boppam ñoo war a def benn dank ngir mën a jàkkaarloo ko Macky Sall ci beneen wàll ba Moussa Tine ne jenn jafe daal daal la kujje gi am ci suñu réew mooy tasaaroo biñ ci nemmeeku Ousmane Badiane ci beneen wàll wa nag di dellusi si wàllu taarix ñu wax ba tey ci wàllu politique ak waa laas waxtaane ñu wàllu parti bi di PUR li ñu nemmeeku ci parti unité et du rassemblement mooy lu ñu leen dégg lu dul élection am suñu réew te ci jamono ji nga xam ne nag parti yi ñu ngi waxtaan seen biir ngir xool nan la ñuy demee ci élection yi ñu jëm moom pur moom ba fi mu toll nii daal kenn déggu ko ca ndax day wëy demal boppam wala dafa naral a lëngoo kenn ngir dem ci élection yi ki ñu dénk wàllu jokkoo bi ci pur di ma Maxari Mbay daal ne parti bi àddoogu ci ak lu mën a am daal li ci kanam rawali gët bu ñu sukkandikoo ci laas Le Quotidien moom di ñu waxtaanee wàllu conseil supérieur de la magistrature rawatina kuréel gi nga xam ne nag mooy delloo si si yoon ñi jalgati xamle ne yeneen ñaari magistrat woo nañ leen fa kenn ki di Cheikh Diakhoumpa di substitut général cour d'appel bu Ziguinchor moom nag daal dañoo nemmeeku ne bëriwul teew ci biroom moo tax it daal araftu nañu ko bu baax a baax ki ci des di Habib law bi Aw ab avocat général la bokk ci cour d'appel bu Ndar Géej ñu koy toppee mooy dafa jël ci ay jàmbur juróom fukki million wante ci mujjanteel ga xamal ne waa conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature ne delloo na alal boobule seeni protocole beeg mbas mi rawatina nag protocole sanitaire charte yi nga xam ne moom la ñu tekk ngir mën a xeex mbas moomu le soleil di ñu xamal ne daal loolu la yombul benn yoon ci biir l'école yi li ko waral nag mooy yenn élèves yi daal ñoo am jafe-jafe jëmale ci wàllu dandante bi ñu wax leneen loo xam ne it soxal na ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool mu jëm ci wàllu mbëkk mi ak wàll enquête démb nag askan wi si boppam jaarale ko ci xarala yu yees yi ñoo doon ñaawlu loolu le ak amal ab dëj ñu ngi koy def nag ginnaaw gi ñu nemmee ko ab des si loolu le ak waa critique di xam la ne daal bi la tekk tekkaaral warul Macky sàll dafa ne patt ñes moom buggul sax dégg li ni mel ñu wax ba tey ci mbëkk mi nga xam ne dafa gën a naa takarnaase suñu réew ak tribune di ñu xamal nan la ñuy def seen biir ngir amal ay tontine ngir mën a dem bi biti réew ñu wax ba tey ci wàllu mbëkk mi ak libération ak li yees jëmale ci wàll duudu fay ñu ñuy xamal ne am na yeneen waajuru ay xale yoo xam ne teg nañ leen loxo ñooñu leen nag ndekete dañoo jëloon seeni doom dugal leen ci gaal bi nga xam ne ci la duudu fay dugoon ba sànku ci digg géej ñu wax jëmale ci wàllu tàggat yaram ak stade di waxtaane jongante bi nar a am dibéer ak jàmm bu ñeenti waxtu jotee ci diggante Guinée Bissau ak sunu réew lenn la ñuy xaar ci gaynde yi mooy ñu fexe ba mën a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jëm jotoon nañu padd surtout si xanaa kay ñu doggali leen benn yoon Koulibaly ne Guinée Bissau nag moom bu yeboo rek ñu moytu ko ndax ci réewam beneen xar kanam la nar a wone lenn rek a leen war ñu fexe daal ba am ñetti point yi ñu fay ut li ni soxal waa lii quotidien Sénégal luy tolloog juróom-ñeent fukki minutes moo ko dese ngir mu mun a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations bu atum 2022 ñu jeexale kook waa sunu lomb di ñu xamal ne arène bi dafa nara a jaax lool ak fukki komba yi nga xam ne moom lañ nar a tëgg diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier mu nar a doon ak règlement de compte Modou Lo ak Ama Baldé moom nar a nekk combat bu mucc ayib Siteu ak Papa Sow moom boobule komba kenn dootu ko fàtte Eumeu ak Lac 2 war a jàkkaarloo ci seen mujjanteelu jàkkaarloo ci diggante Gouye gi ak Reug Reug moom lu ne mën na caa xew lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm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 ah dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex ak parfum yu orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen may lii ci yéene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 Touroum ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères. seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse. Adama John. Euh, mbokk yi kon fii lañu ñuy yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi dina dellu siwaat xibaaru tàkkusaan si juróomi waxtu ak juróom benn waxtu lay doon ñaari waxtu xibaar yi ci tënk jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokk yi xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm xibaar